wa radiyallahu tabaaraka wa ta'ala an saxaabati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala xawla wala quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim ñu fas yéene soobu ci suñu ñaareelu bind ci téere bu màgg bi di alchamail almuhammadiyati alchamail almuhammadiyatu lil imaam alxaafid altirmidi rahmatullahi alayhi téere bu rëy bi làmboo jikkoy yonantu sallallahu alayhi wa sallam wala làmboo melo yonantu alayhi salaatu wasalaam yu biir te dellu ci jikko mm. ak may yi ko yàlla may mm. ak yubbiti mm. dellu ci bind bu rafet bu ko yàlla bind kaar alayhi salaatu wassalaam mm-hmm. dajale na ci nag lu jege ñeenti téeméeri xadiis ci takk ñetti téeméer ak juróom ñeent fukki xadiis mm-hmm. ak juróom ñaar mm-hmm. séddale ko mm-hmm. mm-hmm. Mm-hmm. juróom fukki bunt ak juróom fukki bunt ak juróom benn taar yi ci nekk yëpp ñeel yonantu sallallahu alayhi wa sallam yàlla nañu ko wàll wala yàlla nañu leen wàll amin nettali nañu xumaydu xumaydu bnu mascadata albasriyu xumaydu doomi mascada kay ko jub basra nee na xaddatanaa nettali nañu abdulwahaab althaqafiyu an xumaydin jëlee ci xumayd an anas ibni malikin jëlee ci saxaaba yonentu sallallahu alayhi wa sallam sayyidina anas qaala mm-hmm. mu ne mm-hmm. kaana nekkoon na rasulullahi yonentu sallallahu alayhi wa alihi mm-hmm. wa sahbihi wa sallam wa sahbihi wa sallama tasliman rabaatan di aji digg doomu ci taxawaay mu firi ko laysa bi tawili maanaam joolu doxoon ba mu xëpp wala bil qasiri dawutoon ndaama dana ñëw tamit ne yonentu sallallahu alayhi wa sallam moo gënoon a njool ku diggu dóom loolu li muy firi mooy yonentu duwutoon njool ba mu xëpp waaye njool la gënoon a jege maanaam nit ku dugg doomu yonentu sallallahu alayhi wa sallam ko gétti tuuti waaye njoolul woon ba njoolaay ma ñaawal ko am na mm. njool yu ñaaw mm, mm. gàttu lool it sallallahu alayhi wa loolu nag bu taxawee moom kenn la waaye bu nekkee aw nit lu njool njool moom ngay seen ca kaw loolu ma xaama bi la bu toogee aw nit lu njool njool ay waggam ngay seen loolu ma xaama la sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam hmm? wa tailu man macha walaw kaana mimman littiwaali numi ca xilaafu dahab fi siirati xayril xarab Seydi El Hadji Malick rahmatullahi alayhi nee na xasanal jismi ku rafetoon yaram la moom yonantu sallallahu alayhi wa sallam yàlla daf ko jox rafet yaram woo xam ne hmm. rafet lool ci bind hmm. cër hmm. mel na gën rafet ci ñu cër mel sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mu ne wa kaana nekkoon na chaaruhu ka wax chaaru mu ne karaw raw moom mooy loolu ñuy e, defaree laax yooyu mm-hmm. waaye kawar ngay wax ndax dafa mm-hmm. war ca kaw mm-hmm. kaana nekkoon na shaaruhu kawaram laysa bi jaadin duut muy aji kotom duut muy aji leemu ba mu ëpp duut muy aj lunku maanaam kër leewul ba mu ëpp wala sabtin duuti muy aji tàlleeku ba mu ëpp ci diggante bi la nekkoon moom yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam mm-hmm. ni ko tuddee ci xaj ji jiitu asmaral lawni asmaral nekkoon na moom yonentu di aji xees mm-hmm. ci couleur mm-hmm. yonentu sallallahu alayhi wa sallam teem weexutoon ba mu waaye ñuulutoon fa xeesoon pecci sallallahu alayhi wa sallam mm. ida mm. su doxee mm. yatakaffa'u dafay buddeeku mm-hmm. jëng jëm ci kanamam mm-hmm. di wane gaawaayu doxam mm-hmm. ak dëgëru doxam ak mëtu bindam ak kattan gi ko yàlla jox sallallahu alayhi wa sallam yonentu maanaam du koo xam ne dafa amu kibru mm-hmm. waaye jaram mel na noo xam ne ci dooleen mm-hmm. suy dox rek nga gis ne ab sportif mooy dox mm-hmm. waa ni xew nga xam ne bu ñu sëriñ nga mm. da sa kàddu mm. dégg nga kaalawu mm. njëtt sa loos booy dox mel ni sa tànk da nga ko séexloo yëkkati mbaa tayal koo yëkkati yonentu melutoon noonu yonentu buy dox nga xam ne góor dëgg mooy dox sallallahu alayhi wa sallam hmm. dana ko firi ca kanam hmm. takkafu ci hmm. façon bu gën a leer nee na xaddathana nettali nañu muhammadu bnu bashar muhammad doomi bashar yaani al abdiya bu noon naani ñu xam ne wala aani ñu xam ne imaam Tirmidi yoo wax hmm. bu dee yaani nag mën naa am ki nettali jëlee ci imaam Tirmidi hmm. mooy leeral ban Muhammad ibnu Bashar la jublu hmm. al abdiya Muhammad ibnu Bashar al abdi la jublu mu ne xaddatanaa nettali nañu Muhammad ibnu Jaafar kooku ne xaddatanaa nettali nañu Shucbatu imaam Shucbatu an abi Isxaaqa jëlee ci abu isxaaqa hmm. qaala mu ne hmm. samictu dégg naa hmm. albaraa saxaabi wu yonantu bu màgg boobu di sayidna albara ibna caasibin kay doomi caasib na yàlla gërëm ko yaquulu mu ne fekk ma ngay ne kaana nekkoon na sallallahu alayhi wa sallama mm-hmm. rajulan mm-hmm. am na ñu def rajulan mm-hmm. wane rajulan mooy waay joo xam ne marbuan aji digg doomu taxawaay waaye rajulan mooy yonentu sallallahu alayhi wa nekkoon na di ku diggu doomu karaw karaw kawar boog maanaam kawaram dafa nekkoon bayna juudatin mm. wa subutatin mm. tàlli hut hoon mm-hmm. waaye lunku hut hoon mm-hmm. dafa newoon ci diggante bi mm-hmm. wone rajilan wa kasra jim bi marbuan mm. muy ku diggu doomu ci taxawaay gàttu toon waaye njoolu toon ba mu hëbbu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama baida ma bayna almankibayni nekkoon na di aji sore hmm. lu ne ci diggante hmm. ñaari waggam hmm. waaw yonentu ku sore woon diggante ku sore woon ay wagg la maanaam ñaari mbaggam dañoo sore woon loolu li muy firi mooy yonentu sallallahu alayhi wa ku yaatu dënn la woon waaye ku kawe li gën a kawe ci gannaawam la woon maanaam bu toogee dangay ngay seen ay mbaggam dégg nga ndax dafa musculé mm-hmm. waaye yaatu it mm-hmm. euh, mat sëkk mm-hmm. sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama jummati muy koo xam ne aji màgg ji jummatu la ila shahmati udunayhi jëm ci ay noppam yu suuf waaw ah, yu maanaa hmm. jummatu hmm. ak wëhratu hmm. ak limmatu ñoo am arab buy misaal kawar ju bari dana wax wafratu dana wax jummatu dana wax limmatu wafratu mooy lu wàcc ba ci chaxmatul uzni chaxmatul uzni mooy fii dégg nga mm-hmm. mooy suufu mm-hmm. cet suufu nopp mm-hmm. fu nooy fii nga xam ne fi la jigéen ñi di takk ya eh, jaaru loolay chahmatu kawar su wàccee ba ci chahmatu moom lañuy tuddee wafratu su wàccee nag ba romb chahmatul uduni mooy suufi eh, nopp yi boobaa moom ci lañ koy tuddee limmatu maanaam kawar su wàccee ba ci euh, dégg nga ba romb euh, nopp mm. ci dañ koy tuddee euh, limatu mm-hmm. moo xam yegg na ci mbagg yi mm-hmm. wala yeggul ci mbagg yi mm-hmm. su yeggee ci mbagg yi nag dañ koy tuddee jummatu hmm? kon yonentu sallallahu alayhi wa sallam dégg nga azimal nekkoon na di ku bari kawar dégg nga jummatoom ila shahmati udunayhi ba ci suufi bi noppam mm-hmm. muy wane ne kon kaaw kawar gi foofu niveau boobu bari woon na fa rek mm-hmm. waaye gannaaw tudd na jummatu mm-hmm. kon romboon na nopp yi waaw léeg-léeg yonentu nag sallallahu alayhi wasallam kawaram dana dem ba ci mbaggam léeg-léeg mu wàññi ko ba mu nekk ci diggante mbagg yeeg euh, nopp yi léeg-léeg mu wàññi ba ci nopp yi mm-hmm. wala ci nopp yi liy tolloog foofu la daa moo daa gën a bari mm-hmm. donte kawar gi dana romb foofu ba yegg ci mbagg yi mm-hmm. looloo tax léeg-léeg ngay dégg limmatoom léeg-léeg ngay dégg jummatoom sallallahu alayhi wa mu ne alayhi baraa mi ngi nettali ba muy gis yonantu sallallahu alayhi wa sallam lu mu ne alayhi nekk na ci kawam moom yonantu xullatun complète xamraawu baaji xonq xullatu buñ ko waxee mooy li wolof di wax complète xam naa ne ci tubaab yi lañ jëlee baat bi complète mooy ñaari yére yoo xam ne ñoo bokk genn xeet maanaam moo xam làmbaay la ak euh, dëng euh, isaar mooy tëraxlaay wala muy mbubu ak tuboo koo xam ne ñoo bokk fuñ jógee hmm? wala fi bari na lu ñuy sol complète mu ne gis naa yonent bi sallallahu alayhi mu ngi solub complète ndax complète bu xonq cooy la ndax am na ñuy wax ne yonentu daf daa tere ku sol lu xonq rek imaam Shafii nag dëgg na ci xadis ji ne yonentu eh, sol na lu xonq kon terewuñ ko am ñu ne lu xonq li mu ci jublu yére la boo xam ne dafa am dafa xonq am tere yu weex ba am weex am tere yu xonq lu ci mën a xew daal xullatun xamraaw la tudd mu ne maa raaytu masuma gis shay an dara bu kenn de shay an dara la bu ko defee nit ak jinneeg hmm. malaakaak hmm. asamaan ak hmm. suuf ak jant ak weer ak géej loo gis lum rafet rafet mbaa koo gis lum rafet rafet baraa nee na mosuma gis shay an dara xottu mukk axsana muy gën a rafet minu ci yonentu sallallahu alayhi wa sallam waaw imam Buusiri mu ne fa jawharul xusni bi xayru munqas waaw te jëmmi taar nanguwut a séddaloo yonantu rek la bëgg mu moom ci yonantu rek la xaj sallallahu alayhi wa ku rafetee ni yonantu sallallahu alayhi wa sallam sàkkaat yi ko gën nettali nañu Mahmoud bun Ghaylaan mu ne nettali nañu wakiicu mm. wakiicun mm. mu ne xaddatanaa nettali nañu mm. sufiaanu thawri imaam sufiaanu thawri mu siiw moomule an abi isxaaqa jëlee ci abu isxaaqa an ilbara jëlee ci sayidna bara bni aazibin ba tey radiallahu anhu qaala mu ne maa raaytu masumaa gis min zi limmatin ci boromu njeñ mooy karaw goo xam ne dem na bay jéggi lobbi noppi fii xullatin ku nekk ku sol complet maanaam mosuma gis borom njeñ fii xullatin ci complet xamraa weeju xonq axsana muy gën a rafet min rasulillahi ci yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. loo ñeel na ko chaarun mm-hmm. kawar mm-hmm. yadribu goo xam ne dana dóor dana hegg ci min kabayhi ñaari mbaggam yonentu sallallahu alayhi wa sallam mu ne gis na kawaram mu dem ba ci ñaari mbaggam tudd na limmatu la hmm? wala limmatu mooy kawar goo ne romb na nopp moo xam xàgg na ci mbagg yi wala xàggut ci bu xàggee ci mbagg yi nag mooy jummatu niñ ko waxee woon léegi mu ne baida ma bayna al mankibayn muy aji sori ji li ne ci diggante ñaari mbaggam lam yakun nekkul woon moom yonentu sallallahu alayhi wa sallama bil qasiri di wala bil tawili duutoon joon moo kuit ñi ko melal yépp moom jumla ji d'accord nañ ci lam yakun bil qasiri wala bil tawili yenentu gàttut woon njoolul woon loolu ñëpp a ko ko mellalee donte nag njool la gën a jege sallallahu alayhi wa sallam juróomeelu xadiis mu ne xadda Bukhari muslimin mm. mm. bini hurmus mm. kooku nettali ñu an naafiin an naafi bini jubair bini mutaim kooku nettali ñu an ali sayidna ali bni abi talibin di cousin wu yonentu sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. dégg nga tey saxaabaam boo xam ne moo njëkk ci lislaam mm-hmm. gannaaw xadijatu mm-hmm. dañuy wax ne sayyidatuna xadija moo njëkk a tuub ci jigéen ñi mm-hmm. Seydina Ali moo njëkk a tuub maanaam njëkk a ci lislaam ci mm-hmm. góor ñi mm-hmm. ci xale yi Seydina Abubakar ci mag ñi Seydina Bilaal ci ñiñ moomoon euh, dégg nga waaye maanaam Seydina Zayd ci ñiñ baa yàlla waaye Seydina Ali moom moo njëkk tuub ci góor ñi alal itlaq donte booba xale la Seydina Seydatuna Xadija nag moo njëkk a ci lislaam ci ñëpp nag wax nañ ne bi ñu yónnee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam altine bu xëyee talaata moo hmm. xadijatu bokk julli hmm. radiallahu tabaraka wa taala anhu hmm. an yàlla gërëm saydna ali yu qaala mu ne lam yakun nekkuloon annabiyu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama bil qasiri di aji di bi tawili di njool wala bil qasiri di caageen muy ndaama yonentu gàtt eh, njoolutoon mm-hmm. waaye gàttutoon mm-hmm. mu ne shatnul kaffayni mm-hmm. yonentu sallallahu alayhi wa sallam fees tal te duuf ñaari teq la soo téye seeni loxo mm-hmm. dafa am yoo xam ne mën naa am sax dana la jëm mm-hmm. ngir ñagas mm-hmm. seeni tànkit noonu yonentu nag sallallahu alayhi ay tànkam dafa dug dafa dafa dëgëroon dafa duufoon dafa feesoon wala dañoo feesoon naka noonu ay tënkam waaye ànd ak nooy nag maanaam du ñoon yoo xam ne dañoo ñagas mm-hmm. Seydina Anas nee na mm. musuma laal mm. soy mm. wala mbàjj gu gën a nooy ñaari tënk yonantu sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. Hmm? Mm-hmm. mu rësi yonantu sallallahu alayhi aji màgg ji bopp la wal karadiisi ak bopp yax wala karadiis mooy dajeewaayu yax yi mm-hmm. yonantu sallallahu alayhi wa sallam mm. kum dijji bopp la woon sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. tuuti rafetul ju góor mm-hmm. yonantu nag boppam dafa dijjoon waaye xëpput ni gën a rafet ci ni bopp di mel rek la meloon sallallahu alayhi wa naka noonu tamit dajeewaayu ay yaxam dañoo dijjoon maanaam ku musculé la woon moom yonantu sallallahu alayhi wa sallam yi nga fi nga xam ne fi la yaxi di euh, dajee mm. su fekkee ne dañoo dijji mm. wala yaxi ci boppam bu fekkee nit ay yaxam dañoo dijji mm. euh, dafa mel ni mooy wane ne nit ki borom doole la kon yonentu sallallahu alayhi ku am kàttan la woon tawilul masrubati aji gudd ji karaw gu sew boobu di nekk ci dënn mm. wàcc jëm ci biir la boo mm. xoolee yonentu sallallahu alayhi mm. dënnam amoon na karaw soo xam ne dafa sew jógee ci dënn bi wàcc ba ci biir bi foofu lu karaw goo rek la amoon nag fu dut foofu ci e, biiram ak ci dënnam ak ci weenam ak ci yaramam yépp fa fa setoon wecci sallallahu alayhi moo tax ñu ne boo xoolee yaramam fi amul karaw dafay leer nañ dafay weex tàll sallallahu alayhi wa sallam mm-hmm. Seydina Ali ne ida macha mm. su doxee moom yonentu sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama mm-hmm. takaffu a takaffa a mm-hmm. mu guddeeku mm. jëng jëm ci kanamam mm. takaffu an jëng koo xam ne ka annama yanxaqu dafa mel ni dafay sippeeku min sababin ci mbartal yonentu sallallahu alayhi wa sallam doxoom dafa dëgëroon mm-hmm. te dafa gaawoon mm-hmm. te buy dox dafay focus jëm ci kanamam mm-hmm. boo ko gisee muy dox dangay ngay ne kuy wàccee ci mbartal la te moom ka dox bu normal lay dox waaye noonu la doxam dëgëreewoon ndax yitte ju bëri ak fulla ju bëri ak fayda ju bëri te doo gestu mm-hmm. fii mbaa fële mm-hmm. fi mu jëm rek ci lay focus sallallahu alayhi wa wa sahbihi bu ñu àndaan moom moom muy dox ñoom dañuy daw ndax doxam noonu la meloon sallallahu alayhi wa alihi wa wa ne lam aram wasuma gis mm-hmm. qablahu njëkk yonantu sallallahu alayhi wala baadahu du jaagan gannaaw mithlahu ku mel ni moom sallallahu alayhi wa sallam ñële ñoom ñu ne mosu mosu ñoo gis ku gën a rafet yonant mm-hmm. Aliyu mi xam yonant bi gën leen koo xam foofu nag mm-hmm. mu ne moom waxuma la ku gën a rafet waaye ku mel ni moom mosuma koo gis mm-hmm. Muhammadu mithaalu lam yati fi ma mada wa abadan laa yati Cheikh Ahmed Bamba rahmatullah alayhi ne yonentu ku mel ni moom hmm. masta dikk hmm. te ba ba faw hmm. dootu dikk sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wax na ne maqaamaatu xayri alxalqi an gayri rabbihi mu ne maqaamaay ki gën ci mbindéef yi nëbbu nañ ko kudut ki ko moom maanaam ku kudut yàlla rek nëbbu nañ la ni yonentu soo ci bëggee xam dara mu ne jàngal sóoratu Mulk sallallahu alayhi wa sallam juróom-benneelu xadis wala ñu ñu taxaw ko ñu jàng ko juróom-benneelu xaddasanaa mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm. nettali nañu ahmadu rajot kon nañu taxaw ko ba suba hada wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim amiin